man pool jaamub kiristu yéesu maa leen di bind bataaxal bii yàlla woo na ma ma nekk ndawam sas ma liggéeyu xamle xebaaram bu baax bi xebaar bu baax boobu yàlla dige woon na ko bu yàgg jaarale ko ci yonentam ñu def ko ci mbind mu sell mi di xamle mbirum doomam yeesu kirist sunu boroom lu jëm ci meloom ci àddina ci askanu daawudu la jóge waaye lu jëm ci xelam mu sell doomu yàlla la ndaxte ndekkiteem nekk na firnde ju ràññeeku ne moom la te moom kirist tàbbal nanu ci yiwu yàlla def nu ay ndawam yónni ci biir xeeti àddina sépp ngir ñu gëm ko te jébbalu ba màggal turam te ci ngeen bokk yéen ñi yàlla woo ngeen nekk ci kirist yéen ñi dëkk Rom ñépp yéen yàlla bëgg te leen ngeen nekk gaayam yu sell na leen yàlla sunu baay ak boroom bi Yeesu may yiw ak jàmm kon nag li may jëkk a wax mooy lii sant naa yàlla sama boroom jaarale ko ci Yeesu Kirist ngir yéen ñépp ndaxte seen ngëm siiw na ci àddina sépp bët bu set maa ngi leen di boole ci samay ñaan yàlla sedd na li may wax yàlla mi may jaamu ci sama xel ci xamle xebaar bu baax bu doomam te li ma koy faral di ñaan mooy lii bu soobee yàlla na ma ubbil bunt ba ma mën a ñëw ci yéen ndaxte bëgg naa leen a gis lool ba indil leen barke bu jóge ci xel mu sell mi ndax seen ngëm gën a dëgër maanaam ma nekk ci seen biir te nu dimbalante ci sunu ngëm ndax man itam ma gën a am doole mbokk yi dama bëgg ngeen xam ne xalaat naa leena seetsi ay yooni yoon ngir meññ njariñ ci yéen ni ma ko defee ci yeneen xeet yi waaye ay teq-teq ñoo ma téye ba léegi am naa warugar sama diggante ak ñépp muy ñi jàng ni grek yi muy ñi jàngul ni barbaar yi ñi bari xam-xam ak ñi bariwul xam-xam li aju ci man nag jekk naa ngir ñëw xamal leen xebaar bu baax bi yéen nit waa Rom ndaxte awma benn werante ci xebaar bu baax bi may waare ndax mbirum yàlla la mu làmboo dooleem ngir musal képp ku ko gëm muy yawut ci bu jëkk mbaa ki dul yawut ndaxte xabaar bii day wone ni nit mën a jube ci kanamu yàlla sukkandikoo ci ngëm rekk tàmbalee ci ngëm yem ci ngëm moo tax mbind mi wax ne ku jub ci kaw ngëm dinga dund merum yàllaa ngi feeñe asamaan wàcc ci nit ñi ndax seen weddi yàlla gépp ak seen jubadi gépp ñoom ñi suul dëgg gi di topp lu jubadi ndax li nit mën a xam ci yàlla leer na ci seen xel ndax yàlla won na leen ko ndaxte ba àddina sosoo ba tey mbir yàlla yu nëbbu ya maanaam dooleem ju sax ja ak meloom wu kawe wa feeñ nañu bu leer te biir ñépp ci yi mu sàkk ba tax bunti lay yépp tëju nañu ndaxte bi ñu xamee yàlla taxul ñu màggal ko ni mu ware mbaa ñu sant ko waaye ñu daldi réer ci seeni biir yi xalaat yu mujjul fenn ba tax seen xool gumba ba lëndëm këruus ñu teg seen bopp ni boroomi xel fekk ñu ñàkk xel lañu woon toxal nañu ndamu yàlla aji sax ji wutal fa nataali nit ku dul sax moom ak ay picc ay rabi àll mbaa yuy raam moo tax yàlla bërgël na leen ci seeni bëgg-bëgg ñu soobu ci ñaawteef di jëflante lu gàccelu ci seeni cër toxal nañu dëggu yàlla tëral fen di màggal aka jaamu mbindeef ba faleetuñu sax aji bind ji cant ba faaw amiin loolu moo tax yàlla bërgël na leen ci seeni bëgg-bëgg yu ruslu seeni jigéen sax dëdd nañu li jekk sóobu ci lu jekkadi ñoom ak seeni moroom noonu it góor ñi bàyyi nañu li jekk ci seeni cër maanaam ànd ak jigéen bay am ay bëgg-bëgg yu tar ci ànd ak seeni moroom góor di defante ak góor li warul ñu di jot seen peyu réer ci seeni yaram ginnaaw xam yàlla soxalu leen yàlla it bërgël na leen ci seen xel mu bon moomu ñu sax ci jëf yu jekkat yi seen xool fees na ak lu jubadi lu bon bëgge ak coxor duñu xalaat lu dul kiñaan rey nit xuloo njublëng ak ñaaw njot dañuy jëw di yàq der di ñu bañ yàlla te ñàkk sutura di réy réylu ak a kañu ay jàmbaar lañu ci fexeelu bon di bañ seeni waajur amuñu xel amuñu kóllëre amuñu cofeel amuñu yërmande xam nañu ne ñiy jëfe loolu yàlla daganal na seen dee waaye teewul ñu di ko def boole ko ak di farle ni ci sax